awandoo. asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo tey mercredi 20 janvier 2021 ñu fas yéene jukki li gën a xew li gën a fës ci bopp xibaar yi Mbaye Babacar ginnaaw ba ma leen nuyoo. jërëjëf Ndeye Mbacke gannaaw ba ma la fay nuyu suñu mbokk internet yépp ñuy topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement la am heure bu ñu toogee jàkkaarloo ak yéen fas yéene leen a jukki li gën a fës ci xabaaru làmb ji jógee ci euh, journal yi. jógee ci suñu làmb bi xëy bind Max Mbargane. xëy na décortiquer li nga xam te ne mooy combat royal entre Modou Lo ak Ama Baldé jërëjëf ndey Mbacke comme ni nga ko waxee noonu la Max Mbergane mi nga xamante ni bii ñëpp ràññee nan xam-xamam ak teefam ci wàllu làmb yëkkati na kàddoom jëmale ko ci combat royal boobu nga xamante ne bii moo war a am ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé di combat ba nga xam ne amateur yëpp ñu ngi koy xaar nag te amateur yi jàpp ne combat boobu moo gën a neex ci saison ren bi euh, Max Mbergane ñëwal nañu ci côté bagarre maanaam xeex wante ñëwal nañu ci côté technique maanaam euh, xamante ne bii moom mooy mystique euh, ñu naan ko xarfa xurfa asan ni nga ko waxee noonu la Babacar Max Mbargane décortique le combat Modou Lo Ama Baldé noonu la ko journal suñu làmbu euh, waxee tey dikk na ci bagaar nee na Modou Lo un bagarreur nee na Modou mbër mu mën a xeex la waaye bu ñu fàtte nag ne Ama Baldé moo defoon KO Malick Niang ma nee na Modou moom kenn euh, du ko naatable ci wàllu mystique nee na Ama Baldé tamit mystiquement kenn xam kenn ñëpp xam na ne ku taxaw la ci côté mystique wax na également ci côté technique nee na Modou Lo ku technique la mais Ama Baldé moom que mbër moo xam ne ni kenn mënu ko calculer wax na ci wàllu staff nee na Modou am na staff bu baax waaye kii di Ama Baldé moom amul staff waaye ab famille la am wax na également ci force ñaari mbër yi nee na Modou dafa am force intérieure nee na aba Ama Baldé moom bindu mbër la am loolu la Max Mbargane wax ci combat boobule Babacar ba léegi Jupiter Diagne ñëw directeur de la DTV ñëw na ci li nga xamante ne ni mooy TNT neen TNT mooy seul système bi nga xamante ne ni mën naa dimbali u làmb jërëjëf Ndeye Mbacke Jupiter Diagne ñëw na ci li nga xamante ne bii moom mooy journal bi nee na système bi nga xamante ne bii moom la jàpp ne moo gën a gaaw ci suqali làmb ji moo gën a gaaw ci delloowaat làmb ji fa mu nekk moom mooy TNT Assane Jupiter Diagne moom mooy directeur général DTV ak euh, Dunia FM moom nag benn euh, interview bu yaatu la seq ak euh, suñu làmb lu mu fa wax mooy que ne il y a plusieurs façons de faire le PV PPV maanaam euh, nit ñi dañu yaakaar ne PPV benn façon rek la moom dikk ne na PPV ay manières yu bëri mën nañ ko am. wax na également ci wàllum satellite ak wàllum xaalis mi nga xam ne nii moom mooy nécessaire pour que benn télé mën a diffuser benn combat mais wax na également si partenaire entre promoteurs yi ak télé yi wax na lan. moo tax euh, partenaire boobu partenariat boobu mënul àgg euh, wax na également comme ni nga ko waxee TTN TNT bi nee na mooy système boo xam ni moom moo gën a viable pour ñu développer làmb ji. moo gën a viable. Mbaye Babacar dañuy ñëw ci nga xam mooy Malick Gakou nga xam ne jógewul ci tànk ki nga xam te ne mooy Père Mbaye Guèye depuis ba mu feebaree ba léegi. Euh, kii di Malick Gakou nga xamante ne bii ba Père Mbaye Guèye ancien tigre de fas bi feebaree ba léegi jógul di di ko jàppale ngir euh, yaramam delluwaat ci tan ngir mu wër. dëgg la euh, Mbaye Babacar Malick Gakou ñëpp xam nañ ko moom moo nekkoon ancien ministère des sports ginnaaw ba Mbaye Gueye mi ngeen xam ne benn AVC moo ko tëddool tëddaloon euh, Malick Gakou nag dem na seeti ko fu mu demoon moom mooy sa Sacré kër kër Tapha yi foofu la ko fekk seeti ko nemmeeku ko xool ba xam euh, nan la yaramam def waaye journal bi dee na nag Mbaye Gueye moomu mi ngi féex bu baax a baax a baax xanaa di ko jolli ñaan rek féex gi gën a wéy loolu la woon. di ko ñaanal mu féex bu baax ci ci ñu jëm nag mooy ci nga xamante ne mooy arbitre yi arbitre yi nga xamante ne nii depuis 10 mois sëflé ñu ñoom ñu ngi ñaxtu. Euh, jërëjëf Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la gannaaw promoteur yi mbër yi. Euh, ak amateurs yi ak ménagers yi nga xamante ne bii ñoom wane nan euh, ni ñu nammee làmb arbitres yi ñoom tamit ñëw nañu wane seen bopp ne kenn gënu leen a namm làmb ndax depuis mbas mi dugg ci réew mi ba léegi sexuñu soufflé wàcce seen loxo ne euh, ñaari mbër bëre kon mën nañ mën nañ wax ne fi mu toll nii ñu ngi wane ne dañu namm làmb bu baax a baax asal noonu la Babacar comme ni ngeen ko xamee 14 mars ba lee passé muy 14 mars 2020 boobu leen arrêté woon làmb ci boobu ba léegi nag arbitre yi ñoom sifflé gun ñoom nag kenn si ñoom mu tudd Babacar Diop wax na ak waxtaan na ak suñu làmb li mu wax mooy situation bu difficile la ñu dund nii bëgg nañ dellu ci ci stade yi waat euh, sifflewaat waat yi mais neen nag ñoom pare nañ sax pour def ay test Covid pour que ñu mën a démarrer waat làmb ji loolu la wax. te kañ dem nag mooy prince prince mi décortique mi décroché combat bi dox ci diggante armée ak Feugeula suñu làmb xay ne ku ñàkk ci làmb boobu rek yow yaay perdant Euh, noonu la ko suñu làmb waxee diggante armée ak fëgal di combat ba nga xamante ne bi bokk na ci combat yi amaat combat bi amateur yi di xaar mu ne komba boobu ku ci daanu ku nekk rek jàppal ne dugg nga ci gën ngaa dugg ci biir saako yi li ko waral mooy ñoom ñaar ñëpp ci defet la ñu jóge malheur au perdant noonu la ko tuddee mooy keneen ku ci daanu rek sa affaire du baax ndax ñoom ñaar ñëpp ci defet lañ jógee armée Thiat moo ko daane woon le 15 juin 2019 bi passé waaye fëgal moom. ci double moteur moom moo ko arrêté woon loolu ci 7 juin 2019 la xewee woon. kañ yaakaar ne moo jëm ci perdant ndax chom ndax chômage bi di ñaari yaar ñu gëj ko gis ci làmb ji ñaari yaar ñu gëj koo gis ci làmb ji moom nee na li mu bëgg fi mu toll nii mooy tooyal xaftaanam ndax li ko waral mooy yaramam mi ngi xesen bëgg naa duggaat ci géew bi wane boppam. ñaari yaar tur bu miinoon la ci làmb. at yële passé mais nag dafa disparaître completement suñu làmb nag seeti na ko wala euh, wax dikk na ci moom suñu làmb lu mu wax mooy que ne ñaari yaar mi ngi continuer ci chômage ba mu ba mu duggee ci chômage yàgg na te ba léegi des na fa euh, yaa ñaari yaar bi nag nekkoon na école de lit Abim Ndiaye ba mu fa jógee mu dem école de lutte Pape Dame Mbaye mais ba mu fa demee ba léegi benn combat defagu ko mais nag ñu ngi koy xaar mu ñëwaat ci làmb ji noonu la ko journal bi waxee ñu ngi koy xaar mu ñëwaat ki nga xam te ne mooy Yeddaale Gningue interprète Pape Abdou Fall ak ki nga xam te ne mooy Dieye ñaari promoteur yooyu Yeddaale Gningue yëkkati doom jëmale ko ci ñaari promoteur yi Pape du Fall ak ki nga xamante ne bii moom mooy Dieye yi daal yi li mu bëgg moom mooy que ne Pape Abdou Fall ak Dieng ñooñu ñu wax ci situation euh, promoteur yi moom li mu bëgg mooy ñoom ñuy defendre intérêt promoteur yi pap Abdou Fall moom moo diriger euh, l' association des nationale des promoteurs de lutte du Sénégal moom Mamadou Dieng seen moom moo diriger l' association nationale de euh, promoteurs authentiques Dieng nag li mu leen di li mu leen di wax mooy ñoom ñaar ñu jóg wax pour defendre intérêt promoteurs yi loolu la Dieng wax. Mbaye Babacar ki nga xam ne nii mooy Malal Ndiaye champion olympique nga xam te ne mu ngi ba léegi ca fee nga xam ne Italie. ni nga ko waxee Malal Ndiaye ba léegi ma nga fële ci itali jàpp salfam euh, champion olympique boobu nga xamante ne bii représenté na Sénégal euh, fu nekk ci àdduna bi nekk nekk écrit euh, Pikine mbooloo ma nga fële ci Italie ba léegi toog rek. Malal Ndiaye yàgg na toj làmb yàgg na toj ay lutte simple. ñëpp xam nañ ko yàgg na fi bëre euh, bëre bëre na fi équipe nationale olympique bëre na fi également équipe nationale bu lutte simple mais nag depuis quelque années moom mi ngi itali toog gisuñ ko ci làmb ji euh, suñu làmb nag nee ne moom li mu fa nekkee mooy que ne ci benn euh, garde garde gardiennage lay def mu ngi ci sécurité bi ci loolu la yëngu ci Italie. ci loolu la yëngu dañuy ñëw ci nga xam te ne ni mooy suñu làmb ki mu xëyee di laaj ndax mu ngi dundam déet mooy équipe bi nga xam te ne ni mooy équipe Khadim Ndiaye léegi Caaroy avenir ñi ngi laaj ndax mu ngi dund am déet xaadim Njaay mi nga xamante ne bii moom moo jiite écurie euh, yi Avenir ñu ne écurie bi mu ngi ci tànki suuf. Euh, lamb ji bu amee 45 ans da ngay retraité xaadim Njaay am na 45 ans looloo taxoon mu retraité mais bi mu retraité jógee écurie caaro yi euh, Mer dafa créé woon benn écurie bu tudd yi Avenir mais depuis loor ñoom benn combat doxaluñ ko léegi nag euh, journal bi nee ne euh, combat euh, kii écurie boobu dafa dee wala ci lu nekk en tout cas ñu ngi posé wu la question est-ce que écurie Thiaroye Avenir boobu dafa dee. Mm. ñu ngi xaar nag Khadim Ndiaye moomu ñëwaat wax ci lu leer. ñu ngi xaar Khadim Ndiaye ñëw wax ndax làmb làmb yaakaar naa ne ñuy bëri la xam. ñii bëri lañ xam dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy lëdi seen agent Reug nee na li nga xam te ne mooy wiikuloo yaakaarul mu mën a dox ci li nga xam te ne nii mooy lutte simple Leyti Sène noonu la ko waxee ci biir journal bi nee na huis clos presque jàpp na ne mënul am ci li nga xamante ne bii moom mooy bëre simple li ko waral mooy bëre simple bokkul ak bëre door asam. dëgg la Leyti moom li mu wax mooy que ne euh, comme coronavirus bi mu ngi fi euh, la lutte euh, mën nañu démarrer saison lutte avec frappe loolu moom nee na ba si kenn naan ay ay choix yi la ñuy def wala mais nee na lutte avec frappe moom mën nañu démarrer ak huis clos mais bu loolu moom bu kenn xalaat ne da nga koy def huis clos ndax àndul nee na lutte simple dafa am sport la mais tamit dafa am benn culture wàllu culture bu nekk ci côté bi donc nga def ko huis clos moom euh, rey ko la mënul nekk. lu mënul nekk la ñu ngi xool Mbaye Babacar record tey dafa xëyee ki nga xam te ne mooy Gris 2 le tigre de Fass en puissance ki nga xam te ne nii am na 8 victoire benn defet rek laa am benn yoon rek la mën sa lanc. mi ngi noonu kooku mooy Gris 2 di rakku Gris Bordeaux euh, journal bi ñëwal nañu ci moom nee na am na li nga xamante ne bii moom mooy euh, juróom-ñetti combat euh, am ci am na juróom-ñeenti am ci juróom-ñetti victoire ak benn défaite journal bi nee na Gris 2 mi ngi ci tànku nekk Tigre de Fass. Gris 2 un tigre de Fass en puissance noonu la ko journal Record waxee lu tax mu wax ko mooy que ne Gris 2 dafa tegale huit victoire ci neuvième combat la doog am défaite loolu nag journal bi nee ne Eumeu Sène Balla Gaye 2 ak Bombardier ay roi des arènes lan mais mosuñ ko réussir ndax ñooñu ñu ñooñu ñu site ñii avant ñuy àgg seen huitième euh, victoire daanu nan auparavant nee na Gris 2 euh, chaque année wala chaque année dina am un virgule de combats par année en moyenne loolu lay bëre nee na également Fass buy nelaw Gris 2 moom ñëw na pour sauver leen. jërëjëf jërëjëf Assane jërëjëf Mbaye Babacar loolu gënoon fës ci bopp xibaar suñu làmb di leen dox dig daje ba ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.